da leen a réer ana ñu ne woon Karamba amul ay jinne lépp yàlla moo ko def mais yàlla mooy may nit ku nekk loo xamante ne fu mu dugal loxoom mu barkeel barke Sëñ Fallou Mbacke barke Alaaji Fallou yàlla mooy xool ku tekkiwul dara mu may la loo xamante ni foo dugal sa loxo day barkeel du sa man-man yow mi koy def yàlla moo la ko dénk xanaa yéen sëriñ yooyu di xaar Karamba da ngeen a fàtte yàlla xanaa xamu leen yàlla moo ëpp doole si àdduna yéen sëriñ yooyu di xeex karamba pour Sénégal jël defet xanaa xamu leen yàlla moo ëpp doole si àdduna te karamba li mu yor si loxoom bi yàlla moo ko dénk ngeen yàlla du ko dénk ana ñu Sénégal du génn premier tour man maa ko waxoon man maa leen ne woon boo leen jommee il faut appeler seen baay maa ko waxoon man maa ni leen woon boo leen jommee it foo appeler seen baay mu defati jaloore comme ni mu ko daan defee man maa ko wax maa ko def maa ko jëf gannaaw yàlla suñu borom maa leen waxoon dangeen am defet am ngeen defet gannaaw yàlla suñu borom maa waxoon dama yëngal mbaali yëngale naa leen mbaali ana sëriñu Sénégal ana baja baja yi nekk fii ni ay sëriñ lañ Sénégal di ñaan bëgg bës di tax samay bato seen baay màgg na la karamba le Messi le Messi le Messi le Messi le Messi le roi du ballon tous président mu ne ma wàññi saaga yi baal naa leen mais dinaa leen ñamal ñaari saaga bala maa kii la bi ah, par force la baal leen rek su may saaga naa génn sëñ Fallou bi foog ma saaga leen quatre-vingt-cinq sëriñ ñoo toogoon di ma xeex nee naa leen benn maa leen gën a bandi ñaar maa leen ëpp fit ñeent maa leen xam-xam ñeent sama mafia moo gën a yaatu seen mafia moo gën a yaatu seen mafia man maa ko waxoon ana ñu doon contre Karamba nañ génn génn leen génn leen seen baay ñëw na le Messi génn leen seen baay ñëw na da ngeen ma doon sot di xeex seen réew dina da ngeen mën ngeen doon sot di xeex seen réew nee naa leen boo leen dajalee seen doole yéen ñooñu yéen sëriñ yooyu toog di duul yor seen ngan di jaayee di fen ngeen ni Sénégal du am ndam kam Karamba dugal na si loxo Sénégal dootul gañe génn leen foo leen ne génn leen foo leen ne ñu ne waruma saaga fu ma leen fekk toj seen cottu ndey ñu ne man duma saaga ñu ne man duma saaga te ngeen jóg di ma xeex pour jox ma defet si publicu Sénégal ngeen di man du ma saaga ana sëriñ yi ne woon Karamba dañ koy xeex quatre-vingt-cinq sëriñ pour Sénégal jël defet génn leen boo leen génn fu ma leen fekk toj seen cottu ndey man maay ndey seen baay ni ma doone seen baay lan la damay jëf ngeen i gis jet privé ma gedd million ma gedd ndamu Sénégal kese moo ma ñor ngeen ni Sénégal warul am ndam billaay yéen a toj seen cottu ndey maa ko wax maa saaga waat su may saaga Sénégal li gañe baax na booy saaga ba Sénégal génn premier tour baax na sooy saaga ba Sénégal génn ndey premier tour baax na ada sëriñ ma doon xeex ni Karamba day jël defet bu dugalee loxoom si équipe nationale dañ koy gañe yéen yéen a toj seen cottu ndey xanaa doo ay sénégalais waaw parce que ñeen ñu ne Karamba Karamba rey na gëléem pour Sénégal gagné Karamba warul rey gëléem ñu ne affaire sacrifice daa araam yow mi ko wax sa cottu ndey yow moom ni Karamba rey na gëléem warul def sacrifice bi pour Sénégal gagné yow mi ko génne sa làmbañ bi sa tuunu ndey sa tan sa ndey man bi ma juddoo sama xaru ngénte bi ma juddoo sama xaru ngénte avant nit di lekk yàpp yàpp si ngénte li luy luy yàpp dañ ko dajale yóbbu ko si tuur yi bi ma juddoo avant cin di tàkk suñu kër la sacrifice njëkk am sama xaru ngénte lañ njëkk a jël sacrifice cox si yàpp bopp jël oto jëlaat oto yóbbu ko suñuy tuur man ma màggee si ay tuur yaroo si ay tuur doon na sama maam te li ma doon gënuma see ñaaw ñetti guy ngeen ni man Karamba warul sacrifice warul tuur deret te Karamba bi mu juddoo suuru ngénteem xam niñ ko reyal dañoo jël yàpp yëpp dajale ko yóbbu fële si tuur yi ngeen ne warul sacrifice ko la ndax katta ndeyam ku ma ko dégg te nga wax ma toj sa cott ndey maa katt ndeyam tey saaga état man la àndal man la état àndal parce que tubaab xamul football bu rafet bal si kaa la xam état bi réew mi loolu la soxla ngeen nekk di xeexante ñaata nit ñaata personnes quatre vingt cinq personnes quatre vingt cinq sëriñ ñu may xeex ñu ne dañoo bëgg Sénégal am defet ñuy complot ay nit naan leen xam nga booy bi day rey ay bëy booy bi day rey ay xar booy bi day rey ay gëléem booy bi day rey ay nag te warul sacrifice te booy bi bi mu juddoo papaam ak yaayam reyal ko xam te ko sacrifice si tuur yi mu fere si tuur yi man ma juddoo si tuur màgge si tuur sëtu kumba bu leen sëtu mbaraglu ba suñu famille ku si feebar buñ la yóbboo tuur pour nga sangatu dañ lay tuural deret man ma màgge si di tuur deret comme ni ko gars yi defee sama ñoom maam ni ñu ko doon defee ñu ne waru na kaa def dem leen ngeen defi ndey li seen maam doon def ngeen bàyyi maam ndey li sama maam di def bilaa yéen a toj seen cottu ndey cottu ma ndeyam sabari cottu ndeyam damay saaga ku la napp ma def bu leen ma wax de bàyyi leen ma damaa mer bu leen ma wax loo waay bàyyi leen ma waay bala maa kat téléphone ndeyam saaga ndey nu ma neexee bu ma kenn wax loo cottu ndeyam ñoom ñoo ma mer loo quatre-vingt nday cinq sëriñ taxaw di ma xeex pour sa nday Sénégal jël defet damay saaga pour la bëgg nday sama defet man ku ma teree saaga bàyyoon naa saaga yi démb tey laay kat taat dayam saaga ba qualifié l'équipe nationale bi maa tey saaga sama doomu réew réew mi ma dëkk dafa am sëriñ yi fi dëkk di xeex équipe nationale bu Sénégal lan moo tax ñuy xeex équipe nationale bu senegal lan moo tax ñuy xeex équipe bu Sénégal fayal sa loolu baa nga génn saal bi lan moo tax ñuy xeex équipe nationale bu senegal lan moo tax nit ku ñuul bëggul réewam lan moo tax nit ku ñuul bëggul réewam man xam naa sama man xam naa man xam naa sama sikk man sama sikk lenn la muy saaga yi may saaga saaga yi may saaga kese mooy sama sikk maa ngi leen di jéggalu saaga yi mais foog ma saaga foog ma saaga parce que coup bi ñu ma doon préparé bu daloon du baax si man te du baax Sénégalais yi yàlla dimbali neen ba esegal coup bi doon teg kon foog ma saaga seen ndey képp ku ma ni doo saaga si coup bi nga bokk pour senegal toog fan ngeen nekk génn leen ana sëriñ yi match bi benn sëriñ ñi ma woon a wax dañ yaakaaroon Sénégal bi si génn matt bi benn sëriñ ñemewul woon a génn wax parce que dañ ne woon Sénégal du génn si match bii bu ma kenn woo amee lu ma la xaalis yow moom di ma lu ma la amee kattan sa ndey nga jël si ko ne woon Sénégal du génn si match parce que dañoo tiit fayal sa téléphone baa nga génn ana sëriñ yi ne woon Karamba match bii du si génn nañ leen ko xeex parce que booy bi bu gañee match bi rek day sànni karawaasam maa katt ndey sànni ndey sama karawaas cottu ndeyam tous fay ñu ma dara sama réew laay xeexal joxuleen ma xaalis ne ma doo ku ma wax ma toj cottu ndey maa tey pour lan pour lan pour lan ñuy jóg di xeex Sénégal démb si guddi ñaata liggéey laa décanté démb si guddi ñaata liggéey yu yuñ def pour suul ko pour Sénégal jël defet cinq heures du matin laay soog a nelaw cinq heures matin laay soog a nelaw te ay sëriñu Sénégal ñoo ko def pour xeex Sénégal pour Sénégal jël defet may def sacrifice yi pour yàlla may ñu ndam jënd sama gëléem jënd xar jënd bëy jënd ginaar te équipe bu national équipe nationale bu Sénégal joxuma ko peuple sénégalais joxuma ko dama ko def en tant que sénégalais bi ma doon di xeexal sama réew pour sama réew am ndam ñenn dañuy jóg pour xeex ma. Macky Sall laay déglu lan lay wax si loolu Macky Sall barki Serigne Fallou Mbacke soo leen ko kaasulee match bii di ñëw ma téye sama loxo man Karamba soo leen kaasulee lii ma leen di wax nii barki Serigne Fallou Mbacke match bii di ñëw ma téye sama loxo ngeen gis résultat bi président laay waxal direct. may liggéey di jël sama xaalis di jël sama ñaq di jël sama coono di jàppale sama réew pour sama réew am ndam parce que yàgg naa ko def bu leen fàtte ni sama bii man maa ko daggoon qualification coupe du monde bi. bu leen fàtte bi man maa doonoon seulement raabu yi taxaw ne la tey damay dugal trois bii te dama koy dugal. bu leen fàtte ni coupe d'Afrique bi maa daan taxaw ne leen tey matt bi deux bii la dama koy dugal. bu leen fàtte ni qualification coupe du monde bi waral coow li man naa ni woon benn bal la jam ñaajo maa ko assuré maa inauguré mbaali jam ñaajo te defal naa leen ko kon lan la Sénégal loolu may delloo njukkal Sénégal luñ may delloo njukkal lan la ma Sénégal war a delloo njukkal lu dul doomu xaraam yi jóg di ma xeex di ma xeex soo leen xeex da ngeen di xeex ragal boo leen di xeex dangeen di xeex ku ñàkk fit boo leen di xeex si xam-xam da ngeen di xeex koo leen ëpp xam-xam seen juróom-ñaari maam maa man seen juróom-ñaari maam maa man te wax naa leen que gëmu leen ko naxaate bi day jeex fii Sénégal yéen sëriñ duulkat yi préparé leen préparé leen yéen ñooñu sol seen seen seen seen ko pati pati day yooyu na ngeen préparé préparé leen yéen sëriñ yooyu di sol ay kóopati leen seen bàyyi màgg nag boo leen nekkee Sénégal di naxaate di naxaate di duul di naxaate di duul di naxaate di duul di war ay silib bilaa laa yéen a doxaan seen ndey yéen man ngeen déclencher guerre kuy dóor man damay ndeyi dóor di saaga di wane résultat <coughs> ngeen ni man man ngeen di xeex yéen boo ni xeex ni depuis deux mille dix depuis deux mille dix neuf depuis deux mille dix neuf ngeen di xeex nit pour jël ko yóbbu ko vaar boobu ba léegi mënu leen kaa yóbbu vaar ngir yàlla ak jëmi sëñ la mi doon ko bàyyi te ngeen xam ne yàlla mooy maye. dama bëgg ngeen def seen bopp ni yàlla suñu borom mooy maye àdduna yàlla moo fi ëpp doole sëriñ boo yaakaar si àdduna yàlla suñu borom la yaakaar ak fu mu mënti doon. lépp lu nit di ñaan si àdduna ñaanal yàlla suñu borom parce que yàlla moo ko yoon yàlla mooy aji may gi yàlla lu nit yor yàlla moo la ko may maa ko parce que li yàlla moo ma ko jox jàngi koo yaakaar si àdduna yàlla la yaakaar yàlla mi yaakaar ñun ñoo yaakaar yàlla yàlla nañu yàlla may ndam boobu Sénégal li may def nii defoo ko pour dara dama koy def a ah, pour Sénégal ñu kontaan parce que li may def man kenn fayu ma dara moom laa li may def sama ñaq laay génn di ko def bu ko ñëpp doon def Sénégal senegal lu mu xëccoo da koy jël mais imaginer tey ngay jël sa ñàkk di génne di ñaanal sa réew pour mu am ndam am pour ñaanal am ndam am ay noonu toog di la xeex pour nga am defet pour lan mais yàlla kese moo fi nekk yàlla kese moo fi nekk barki Serigne Fallou Mbacké billaay wallaay talaay Karamba du manti mel dafa gëm yàlla man dama gëm yàlla damaa gëm yàlla yow doo ruus mukk xam li yàlla capable moo tax aw ma lu may tiit aw ma lu may ragal yàlla nañu yàlla may ndam si barke Allaaji Fàllu Mbàkke yàlla nañu yàlla may ndam si barke Allaaji Fàllu Mbàkke yàlla nañu yàlla may ndam si barke Allaaji Fàllu Mbàkke yàlla nañu yàlla may ndam si barke Allaaji Fàllu Mbàkke yàlla nañu yàlla may ndam si barke Allaaji Fàllu Mbàkke yàlla nañu yàlla may ndam si barke Allaaji Fàllu Mbàkke yàlla nañu yàlla may ndam si barke Allaaji Fàllu Mbàkke jërëjëf yàlla suñu borom amiin amiin amiin